day rey góor day ay benn góor. <laughs> boo waxtaan yow ku xëy est-ce que liggéey boobu est-ce que foofu amour am na fa. pourtant sa jabar di wax nga ne ko waxtaan bi dafa kii yooyu est-ce que amour am na. pourtant dafay am dafa am góor yu bëri xadar. Mm. gaaw a mer tàng. tàng waaye loolu da koy gis seen jabar yi dem divorcé dem nga toppaati pour jëlaat ko. Mm-hmm. loolu bëgg nga ko. Mm-hmm. mais dañoo tàng. dañoo tàng naqari deret duñu neexal seen jig te jigéen ñi ci kër yi di souffrir souffrir souffrance boo xamante ni ñu metti yu metti kenn mënu la koo wax mhm. je t'aime bu ndaw rek ñaane nañ la koo wax mhm. am na ñoo xam ne tey ba tey nii sax duñ ñuy xaar je t'aime mais duñ ko dégg. <laughs> parce que waaw ba tey ñu koy xaar parce que am na ñoo xam tamit duñu forcer je t'aime bi tamit. moo tax tey leen wax seen jabar yi je dañ ko gën. Hmm. gëj nañ koo dégg depuis te doxaan nañ ba ngeen di doxaan. balaa ngay génn waaw ku ne a dund ci mbëggeel waaw. ku ne na wax loo mës a dund ci mbëggeel. waaw surtout loolu ngeen di fàttali. loo jaar ci mbëggeel waaw ñu la mbëggeel def loo mhm. daj ci mbëggeel yooyu yëpp tey day neexal bis bi. waaw loolu lay neexal bis bu waaw ah. mais sa xel dafa am ci ku ci ne mës nga am loo ah, dund ci mbëggeel rek yaa ngi wax waxu fàttali fa sa bët yaa <laughs> <laughs> suuf. taal seen mémoire <laughs> taal seen mémoire génnee seen lépp taaj ko table ji loolu day neexal kër <laughs> dëgg la dëgg la kër man nee naa jigéen joo bëggul bu ko takk bu ko mhm. tardeel di ko sonal mhm. takk leen ki ngeen bëgg mhm. sëy leen ak ki ngeen bëgg loolu mooy neexal kër mais force relation forcer sëy sëy ba du dem du dem de dangay ngay sëy ki la nopp tey daf mel ni Ablaye tamit dama ko war a may monote de seet bu bees ëpp na bu ko may attanu ko sax dañ ko war a ah tëdd ko. waaye waroo warate ko. non non moo leen awa balaa koy yónnee Thiès. Ah, mag la de. waaw ah. ma génnee léegi xool ko ma ko yónnee amoo ci ñaar moom didd ba yeeg. moom didd mel yooyu. <laughs> ñoom ñaar naka de bëggoon na leen jàmm de. nga Thiès yàqu ñu Thiès jóge Dakar dem Thiès yàqu ñu fa sëy fa jur fa seen njaboot seen borom kër bëgg leen. Mhm.